suñ borom dogal na ci faj yu ñu génn ñu ñu ñu génn ci ay suñ borom dimbali ñu mu tàmbali ci jàmm àgg ci amoon na lu ko jiitu lu xaw a metti waaye nag euh, xeex bu ne rek dana am ñoo xam ne suñ borom ñooy dogal ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñoo xam ne ñooy porté ñooy porté xeex ba naka jëkk àdduna noonu la doon doxee yéen mag ñi nga xam ne fekkee ngeen ko waxtu ne ngeen ñuy fàttali 68 wala wala wala nangam ak nangam. kon nag dañuy jàpp ne moment bi ñu nekkoon rek jàpp ne élection jàmm am na am nañ am na ay bakkan yu rotoon ba ba kon nag ñooñu buñ leen di fàtte waaye ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñu jiite ñu ñu ñu bañ bi ñu fàtte ndax état xaw a jafe nguur jafe lool man nga wax lu ne ba jot ca waaye boo ca jotee rek léeg-léeg soppi ku yomb leen yàlla dogal na ñi nga xam ne nag ñoo ci ñoo ci jot am fi am fi ndayee fi bàyyi juddoo fi mën a jàpp sareet mën a wolli mën a góob dugub kon ñooñu xam war nañoo xam nañ métti yi nga xam ne euh, moom moom la njaboot gi di dund jamono métti na àdduna métti na waaye nag nit ki nga xam ne nee na xam na say jafe-jafe ba suñu suñu ñeel la ko ubbil la ko war la ko ba mu leer mu ne danaa ñëw ngir ngir ngir fajal la ko kon nag danañ am yaakaar ci loolu waaye ñu ñu xam ne état moom bu dee moom doogu mënu mënu mënul dara emploi bu la ko état bu la mënu la koo jox ci nga xëy di dem bureau ñëpp mënuñoo dem ci bureau yu néew ñooy dem ci bureau yi secteur bi ñu nekk muy agriculture wala industrie wala pêche yooyu xam nañ ne moo mën a jox gone yi euh, ab ab liggéey loolu xëy na ñoom ñi nga xam ñooy état bi xam nañ ko ba poye bu ne gis naa ñu ñu ñu su ñu suluñu ko waaye ñu li suñu responsabilité mooy bu njaboot gi amee xéewal mën a liggéey rek boobaa ñun ñun ñun ñun suñu mission dafay dafay dafay yomb loolu ndax ndax buñ leen yaree jàngal leen li ci des liggéey nag ngeen ñu am seen teraanga euh, kon état bi nañu dimbale ci yii nga xam ne mooy tax liggéey am muy góorgóorlu ci industrie mooy ay usine góorgóorlu ci mbay mi góorgóorlu ci napp gi géej gii nga xam ne jàmbat nañ ko ba tàyyi wax ne dañ koo jaay ba mu jeex kon nañ fexe ba ginnaaw contrat yi jeex na nañ nañ ko téyal suñu bopp génn fii bateau tubaab yi sunu gone yi saa bu ku ci dugg ci géej gi bala ngaa sori sa gaal mën a fees ak jën nga mën nga mën a dellu si loolu buñ ko defee jigéen ñi ñooy waañu waañu boobaa dana dana dana yomb ci ñoom mbay miit comme suñu ah, dëkk bi xam nañ ne bari na bari na engrais bari na phosphate waaye lu ci bëree bëri tubaab yaa koy yóbbu loolu it fi nekk yee nañ suñuy bopp ba xamal nañu ni Sénégal li fi nekk ci ay ressources mën na koo yor ñun ñi nga xam ne ay baykat lañ bu fekkee saa buñ buñ wëlbati ko ah, engrais boobaa luñ luñ bëgg a béy ci réew mi dana dana danañ ko béy muy mbayum ceeb muy mbayum dugub muy muy mbayum gerte te xam na ne lii moo yor moo yoroon réew mi engrais kon nag mag ñi ko fekkee xam nañ ne bu njëkk engrais bi di ko di ko di di di dawuñ ko def sax si suuf si dëgër na te te te woon na kon nag loolu loolu loolu nañ ci dellu si dëkk bi bëri na ressource boo demee fee ñu wax li ñu wax euh, Darkase tey indien ñoo koy yóbbu ba defar ko ñëw jaayaat ñu ko buñ ko dee jënd fii ay ay potum ndagg mi cent franc cent franc la léegi dikk boo moytul buñ demee xolle ko def ko ci ak mbuus ñëw di la di la jaayee kaas kaasu yu ba cinq cent kenn ku ne gis na ñun buñ duggee ci seen xeeti osan yeeg nu mu mën a doon noonu rek comme yooyu yëpp ay question yi loo xam ne faaw état bi dimbaluñu ci bu bëri wala moom mu dimbali boppam mu dimbali boppam ba nga xam ne industrie loolu moo mën a yor am moo mën a moo mën a jox xale yi ab liggéey jàpp naa ne xam nañ ko xëy na di ko fàttali bu ko defee bu ndox ñii bu bu yombee ci ñun ñun ñi nga xam ne ay béykatu ceeb lañ ndax xam nañ ne coût bi metti na li tax benn béykatu ceeb mënatul am dara mooy mooy coût bi la engrais bi cher na ndox mi cher na produit yi cher na te boo bayee ba noppi boo moytu picc yi jaar lekk ko kon kon kon lu bëri bëri la seen bi dañ ko war a topp ba mu jeex bu ñu fexee ba ñuy bay te luñ bay picc lekk ko boobaa du ci génn loolu kon lii jiitu nañ fexe ba condition yëpp daje. saa boo bàyyee ba gis gis gis koo ko jaay da nga mën a dundal sa bopp mën a mën a mën a mën a mën a dundal sa njaboot ndox mi ñuy waxee ñu ñu ñu dagg ko ndax xam nañ ne ndox mu bëree bëri lu ci bëri ci géej gi lañ koy tuur bu ñu xottee nii mu jaar nii jaar Bawol jaar Saloum euh, doge doge dex dex gën a tee ci Saloum boobaa lu luñ bëgg ci réew mi dañ ko mën a am meññeet yu bëree bëri yu daa am ci réew mi lu ci bëri gisatoo ko. booba sumb si bari woon na mango ji bari woon na limoo ji bari ndax nit bu amee lu mu lekk rek li ñuy jënd ci poosam dafay dafay wàññi ko tey boo demee fi mel ne boo dee poroxaan bu bu bu bu bu bu bu mango mango ji ñoree gone yi lekk fuñ wëlbër bi ña ngay lekk mango boobaa duñ duñ soxla ab ceeb bu ñuy bu ñuy añee li ñuy lekk ceeb dafa bëri li tax autosuffisance xaw noo jëm ñun dañuy lekk ceeb ceeb guddee bëccëg loolu loolu loolu dafa bëri bu yàlla dogalee nit ki am dara ci poosam ñax mi bëri mu amee ganaar ci gannaaw këram wala jën ji bëri bu guddee da nga mën a def sa asfirit ak ak ak say salaat yooyu yëpp c'est des question yoo xam ne buñ ko bàyyi woon xel dañu day maa dund gu yomb la ñu dund ab tokkóor daanaka kër gisatu a léegi man gi bu njëkk ci ginnaaw kër gi tokkóor ngay am ci ginnaaw ñam jaa nga fa kara yëpp daanaka jigéen yi lu néew la ñu lañu lañu la ñu wuti la marché loolu nag buñ buñ ca delloo rek boobaa boobaa boobaa boobaa dund dund dund gi dund dund gi dana dana dana dana yomb waaye léegi si li ñu lekk lépp tubaab yi yëngu nañu mburu ko koy classe euh, Moussa na ngi gis nga seen biir yi ñu toll mburu mburu la ñu lekk guddeeg bëccëg kon nag ab soññee lay doon boo xam ne loolu état moo ko moom euh, waaye ñun nag taxaw nañ pour liggéey ndax loolu rek loolu rek moo ne moo ne bàyyi loolu rek lañ fi nekk nit ñi saa buñ gisee luñ liggéey ay jàmm Sénégal ay jàmbaar rek a fi nekk léeg-léeg ndakaar gi da nga fay gis gis ponkal moo xam ne mbuus ga muy yor du mat du mat du mat ñeenti téeméer wala juróomi te muy daw ci kaw tali bi nga xam ne kii ku am jom la dafa dafa bu ku ko jox liggéey mu dem liggéey dafa gisee gisee gis la neenam def gàddu mbuus gàddu ay sarbet gàddu yu mosuwaat di daw ci tali bi suba ba ngoon jot ba moytul lañ jaay bu ngoonee ñu ñu ñu jënd ko sandwich lekk ko kon da ngay xam ne ñii sonn nañ ñii am nañ jom dañoo dañoo dañoo gisul dañoo gisul dañ liggéey kon nag loolu ñoom ci soññ suñ bopp di ci soññ état bi di ci di ci di ci soññ mbokk yëpp euh, xëy na bëgg moo la guddal sax waaye dafay question loo xam ne ginnaaw bi moo toll foofu rek euh, loolu a tax nu koy nu koy soññi di di di di gërëm ñëpp di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi ak ak bokkam mu baax na te Tiwaawan ak bokkam yi yi yi bokkal bokkal réew mi ñëpp noo ngi noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum